mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di dalal ñëpp jàmm fu sénégalais nekk muy euh, fii ci réew mi ak jaspora euh, bi bitim réew. bitim réew tamit diaspora bi dañ ciy boole Afrique parce que sénégalais yi ñu ngi Afrique ñoom ñëpp ñooy béggee làmb surtout ñoo xam ne ce sont les ténors de la lutte euh, Gris Bordeaux ak ñoom seen ñoom bëri na ñu leen ñuy béggee ñu nekk bitim réew jaspora bi loolu moo leen ñuy wéttali làmb ji tey Gris Bordeaux lañ fekk si fii ci Mbaaw. xaw ma grand mbaaw la xaw ma petit mbaaw mais daal mais daal gudd na waaw moom lañ fekk si ci saal bi di nuyu Makan bu Gaston production kenn nuyu lu Gaston Makan la ñuy nuyu bu Gaston production <laughs> ak équipe bi yëpp gars yi ñu ngi nuyoo bu baax giri ma bàyyi la nga nuyoo ko ak mbokk yi ñu seetaan euh, sama naataango dooru nuyu ñu dugg ci kes mon frère maa lay jaar waaw naan aouzu billahi mina shaytaan rajim dem na fekk sama xaw a soj. ak pollution bi nekk ci dëkk bi nii rek gars yi quatre-vingt-dix pour cent Sénégal bi ñu soj moo tax peut-être baat bi di xaw a naqari xam nga mais bu weesoo ça passe loolu ñu ngi jaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di am contentement wax ngeen def déplacement bu bu yaatu bu metti xam nga leen leen masawu ah parce que fii nag c'est gars yu bari xamu xamuñu fi ah xam nga noonu la ah mais jafewul si nante yi quoi nante yi moom foo leen foo leen joxoon foo leen ñu ñëw non yow yaa ñëw ñëw nga yaa njëkk ñëw ñëpp mais ñu ngi ziar ñëpp di kontaan di kontaan jàkkaarloo ak yéen ah parce que comme ni nga ko waxee rek làmb moom diaspora bi dañ koy dañ koy dund te dañ koy moom la mooy seen wéttal ah di nuyu waa ahlu làmb yi nekk ci diaspora bi yëpp ah xam nga sénégalais yi nekk à l'étranger di leen nuyu ñoom ñëpp di leen big up rawatina nag sama fan si nekk Miro nekk Mantes la parisien yeeg nante yëpp maa leen di ziar di leen kontaanee di am contentement nag jàkkaarloo ak yéen leen fekk nag ma dóor ba sonn nag ngeen ñëw ma tombek tombek ma jox leen ambis gël rek xam nga jox leen xam nga jox leen rabais musculaire mënu ñàkk di nuyu makan l'infatigable nga ne kenn dootul nuyoo di Gaston ah. mais Gaston non Gaston nag defal nànk nag. non ah, ah ok da ko waaw Gaston day siisu de ah. day siisu Gaston nag voilà waaw ñu ngi nuyu euh, makkan bu Gaston production mais Gaston nag actuellement ni day xaar prolongation ba ci kanam. waa day xaar quoi actuellement parce que temps yi moom makan waaw mais parce que bokkuñu génération quoi moom génération Mam Njambaan ay yooyu ay ay tubaabu joor ay yàlla ay voilà mais makan moom ñoo bokk génération di ko bigama ah, l'infali parce que nag mi ngi liggéey parce que nag wax dëgg yàlla mi ngi mi ngi am connexion avec les lutteurs et c'est plus te et mooy li ëpp importance tey tey li makan mën a euh, communication bi makan mën a def avec les lutteurs Gaston amaana am na jafe-jafe boobu xam nga moo tax euh, tey dañu bokk génération mu nekk nit ku wàccee boppam xam nga ñu ñu am entente avec tous les lutteurs et loolu dafa am importance voilà loolu dafa am parce que génération bi ñu bokk ak ni ñu mënee di waxtaan ak ni ñu mën di échanger Gaston mënu ko avec certains lutteurs kon mun ko ñu koy jaajëfal ci loolu ci esprit boobu mu am di ko ci ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàlla bu mu ci mës a gis boppam waa di nuyu euh, euh, Gaston production yëpp parce que équipe la di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu mon frère euh, Pape Bouba waaw mi ngi mi ngi góorgóorlu di nuyu ñëpp ah di ziar ñëpp ah. Pape Bouba dama lay bàyyi première question bi comme nuyoo nañu ba pare def salaamaaleykum bi. waaw man dama fay jaaree ah nuyoo mbokk yi ñuy suivre Gaston production yëpp di nuyu Père di nuyu Makana di nuyu gars yi ma ànd aussi Naar ak Mor di nuyu Giri le grand champion borom Fass Ndakaaru. waaw première question bi damay ñëw si Giri Fass mi ngi ñëw fekk si combat fekk Gris bëri woon na ak Balla Gaye ba pare seen premier combat boobu écurie Fass ak ñëwoon mais bii écurie Fass Ndakaaru mooy ñëw. nan ngeen koy waajee. auzu billahi mina shaytaani rajim la xawla wala quwwata illa billahi al azim gannaaw ba ñu sant yàlla yëpp nuyu nag suñu ay yi nga xam ne gën ñu gis parce que nag mine de rien toog nañ trois ans yoo xam ne tey tooyaluñ suñu xaftaan te dañu am ay supporters yoo xam ne c'est des fidèles ah ay frères. man damay wax ne man awma man waxuma man awma ay supporter ay frère la am ay sœur ay yaay ay tante ñoo xam ne man la ñuy xaar ma bëre suma ma dañuy dem toog xaar ba mu bari combat Gris Bordeaux la xaar te Gris Bordeaux moo leen dugal ci làmb ñooñu tey wax dëgg yàlla ñooñu laay waxal te maa ngi leen di bàyyi xel bu baax am sa mbër nag mu toog lu yàgg bëriwul day metti mais loolu nag peut-être li fi jaar moo bari pandémie bi corona bi ak bari yi ay jafe-jafe yu amoon loolu moo waraloon loolu mais mine de rien nag seen mbërë ngi di wàcc pour le 7 août xam nga le waaw le 7 non le 7 août waaw di di wax ni rek maa ngi wàcc pour venir en force xam nga comme d'habitude néew ma damay ñëw pour préparation combat Balla Gaye je me prépare pour li des suma carrière maanaam ma benn combat je je me prépare pour plusieurs combats mais nag comme que combat bi moo nekk sama kanam ci moom la ñuy wax mais préparation bi ma nekk du préparation benn combat maa ngi préparé avec longévité di wax ne sama fan si maa ngi ñëw xaar leen ma te incha allahu rabbi xam nga kuy liggéey ak ku dul liggéey kuy coow ak ku dul coow amul importance mais li am importance ñu ngi ci liggéey bi te incha allah euh, yàlla dina def jàmm ci ci barke alxuraan. di wax Ndakaaru moom bon Fass Ndakaaru euh, mooy Fass. Mm-hmm. ay ñoom ay ñoom Kati Diop Mbaye Cissé Youssou Dieng rahmatullahi alayhi yàlla na ko yàlla yërëm euh, ñooñu ñoo ñooñu Fass lañ nekkoon Fass lañ nekkoon ñooñu ñoo boo xoolee durant carrière Moustapha Guèye yëpp Kati Kati Kati Kati Diop moo ko ànd moo nekkoon peut-être am na benn période peut-être ñoom ñu quitté Fass ñoom ñoo créé équipe Ndakaaru ñoom ñoo encadré équipe durant toute sa carrière bu ñu demee nag ba retrouvaille amaat ay mag ay mel ni xalifa Dia Abbas Ndoye et tant gis ni ñoom ci ñu lañ bokk te wax dëgg yàlla tette nañ un grand champion tey ba mu téye arène bi pendant des années tey peut-être kooku décroché na ñu xam ne tamit euh, ndakaaru Fass la bokkoon ñu dox ko waxtaan ko mu nekk nag lu woo xam ne amul ku ko rafetluwul Fass mooy ndakaaru on parle de Fass sa ndakaaru benn branche la woon bu xàppati koo ci faas branche boobu nag bu ñu ko jalaatee jëlaatee boolewaat ko ci faas day day yokk xar mi karaw day gën a am doole te ki ki ki di kat xam nga di Ancelotti booy waxee kat yi ci football bi boo ne ci football bi daan kat ci làmb ji kon boog loolu xel mu dal la te mu nekk nit ku am personnalité dama coach entraîneur dama naan sportif d'abord personalité daf ci am importance dafa am personnalité dafa am dignité dafa am diine dafa nekk nit ku maanu nit koo xam ne wax dëgg yàlla mun ñoo dëkk ma dëkk cëriñ mu dëkk sanc bi xam nga malgré que même bi mu nekkul ak man sax ma gis ko mu nekk ak Yékini pendant des années su ma day ak moom ci mbedd mi parce que dañuy gisante à tout le temps bu ma day moom ci mbedd mi day mel ni day mel ni ndijaay ak doom waaw mu nekk ni ko am diine nit na bu amee diine mooy lépp nit bu ñàkkee jii diine ñàkk na lépp ma gis qualité boobu nag kooku nag bu nekkee sama wet ndakaaru ñëw googu Mbaye Cissé et tant d'autres ñëw gën ma gën a épaulé face surtout nag mu ñu tombeel combat bi suma xel dafay gën a dal damay gën a am su ma nekkoon à quatre-vingt pour cent damay nekk à cent pour cent te wax dëgg yàlla échange yi ak liggéey bi ñuy liggéey wax dëgg yàlla bon euh, da lay soulager da ngay xam fi nga jëm parce que nag nit la koo xam ne wax dëgg yàlla xam na xam nga xam na adversaire yi xam na tactique tactique tactique gu combat te loolu c'est très important di ñaan yàlla rek ni ñu ko doma commencé parce que depuis que mu ñëw ba léegi teg benn plan ni teg benn plan plan plan de travail boo xoolee fas ren ñoo ëpp victoire ci làmb ji saison bi ubbi ba kii tey bu ñu doon def <laughs> bu ñu doon def classement Fass nekk ci bopp bi <laughs> booy euh, kenn daanoogul booy yëpp tey bu ñu doon def classement ci làmb ji tey bu làmb ji saison mooy nekk number one loolu nag programme la ak liggéey te nag yàlla ci yàlla naa ñëw rek ñëw yàlla doo ma ñëw rek euh, xam comme que ñooy tëj saison bi ma ñëw rek ñu ñëw ñu terminé en beauté ma tëj rek yor rocci caabi bi def sama poche. comme li nga yi nga wax nice na muy écurie Fass Benno bi ñu boolaa dekk benn des techniciens yoo xam ne ay kilifa lañ ci wàllu làmb comme li nga wax Ancelotti ci ki nga xamante moom mooy suñu papa Kati Diop tey làmb ji muy combat bi nii c'est le combat de la clarification est-ce que tey. sas bi gënul diis ci sa côté. non man làmb mënul sas mënul diis sama côté parce que làmb dama ci yàgg yàgg boo xam ne ay sas ak ay yooyu moom wax dëgg yàlla man moom làmb man li ma dese ci làmb moom damay dañuy takk sama bët samay bëre. la bala on se connaît bëree woon xamante nañu. on se connaît si yow yaa tee sa bopp ñëw andi résistance. muy dóor ngay encaisser. non calcul xam nga làmb stratégie ngay demee. tu as da nga am entraîneur tactique. mooy dem bëreeg soo demee tactique bo tactique boobu peut moo peut-être moo wane faayu adversaire bi lu bari tey Balla tey su sama combat bii soxalul sax ñu naan ma nii ak nii nga war a bëri ak moom comprendre xamante nañu combat boobu moom erreur yi mu ci def xam na ko man it erreur yi ma def ci combat xam naa ko moo tax ci làmb ji mu mënul dañu gis erreur yi am faa yi am ngeen teg benn tactique benn schéma boo xam day génne ay erreur am mais Gris Bordeaux exploité wu ko dafa mel ni Gris Bordeaux résistance rek lañ ko santoon ci combat non du non du résistance bala moo doon gérer combat bi mais man gérer wu moom combat bi Balla la ay mu doon wax gérer dafay nii taxawal temps bi lii moo ci des lii ak lii mais non man wax dëgg yàlla dama ñëw bëre te dama ñëw si làmb ji na tey par A ou B sama adversaire dinaa ko bëreloo endurance mais loolu laa bëre dama ñëw mën naa ko imposer lu muy bëre waaw résistance mais loolu boo liggéeyul donc mënoo ko xam nga sama adversaire musul bëre vingt minutes man maa bërëg moom mën a ko par A ou damay bërëg yow temps bu gudd te tey combat bi tamit man li ma bëgg a bërëg moom laay bërëg moom. combat bi lan la résistance. non loolu dama koy mais man li ma ko bëgg li ma bëgg man day def. si loolu lañ bëgg. loolu lañ bëgg a xam quoi parce que yi dañ doyalul ci combat bi. xeex ngeen raag ngeen. mooy loolu quoi. Ah, Balla moom xam wax dëgg yàlla sama frère mais gën nañ ay poids ay poids lourd gën nañu bëggal amateur te man dama bëgg parce que moom Balla moom laay wax nii dama bëgg wax dëgg yàlla ñu bëggal amateurs yi. ci ci benn temps bu gàtt ñu may amateurs yi benn cinq minutes. waaw bu benn boo xam ne wax dëgg yàlla parce que amateur ci poids lourd. lamb yi am nii yëpp wax dëgg yàlla amateur yu kenn régalé wuñu voilà xam nga ay chute yoo xam ne wax dëgg yàlla avertissement mais nag dama koy ñaan moom gaynde la guerrier la càmbaar la mu ko bëgg balla bëgg nga ñu may amateur lamb yi ñu may leen benn am naa cinq minutes sax day métti ci yow ñu may leen benn deux minutes ou trois minutes boo xam ne day mel ni non day mel ni mbàccum gerte boo xam ne du am song du am dara benn day taxaw rek arbitre tim rek non ñu samp mu am xam nga parce que Balla combat yi Balla day napp day sóob bu ñëwee bu ma déclenché mu song ma boo xoolee Balla combat bi parce que song na ma ay ñetti yoon xaw ma ñeenti yoon xam nga la parce que ça veut dire que moom day saale wan ni day gars yi day xeex te xeexul xam nga mais dama bëgg ngir ji xam nga soose la gay gaynde la non xeexul mooy maanaam xeex xam luy xeex xeex mooy da nga ñëw taxaw ma taxaw xam la mooy xeex sa ëmma seen Gris Bordeaux loolu xeex la bu nekkee su ma déclenché une deux song ma xeexloo mooy da nga da nga bëgg da bëgg ma fàtte nga song ma mais dama bëgg mu may ma ko ak colère gi ñu yàlla boole loolu moom dama bëgg amateur yi xam ni wax dëgg yàlla un combat poids lourd ah man loolu laa bëgg. da nga koy ñaan mais mais wax nga ko keroog si mm-hmm. lii dama ko ko ñaan lii dama ko ñaan. wax si loolu nee na day xool nu ko neexee mu daanee. waxu kii la rek. Balla xam nii nii nii bu tëddee du nelaw man mbëri ku ku ma ci jël doo tëdd boo tëddee doo nelaw. lu tax ah, non parce que Gris Bordeaux la. lan moo ne si Gris Bordeaux barke Khalifa Malick dama bëri ay bagages barke Khalifa Malick. bagage demee nan leeral la ko. gars yi non dama naqaree bëral barke Cheikhou Tidiane billaahi dama naqaree bëral li nga waxoon yaa ngi amul benn mbër buy bëri man te barki Seydou ba ne ànd ak à cent pour cent nga nekk quatre vingt cinquante pour cent sa doo nekk à l'aise billaahi barke xalifa Malick lan dóor mu daanu non dama ne la loolu <laughs> non na leer non Balla ko bëgg loolu pour mu am il nag bu xam nga ni ay li ma li ma ko wax na ma may nañu may na may amateur dañ ko may maa moom benn cinq minutes ou trois minutes boo xam ne xoolal uy ma man dama dama koy ñaan en toute sincérité dama bëgg loolu mon frère dama bëgg ñun bëggal amateurs yi benn deux minutes xam naa cinq minutes dafay metti mais lu tax cinq minutes di metti moom non day metti lay metti cinq minutes endurance de baaxul ko bala amul endurance cinq minutes non cinq minutes moo ko cinq minutes cinq minutes dafa bëri cinq minutes runkunku non non nee na gaynde gu bees gee ñëw amul problème waaw mais dama bëgg cinq minutes dafa bëri mais maa ngi ko koy ñaan daal parce que amateurs yi gëj nañu gëj nañu sentir xam nga làmb yi fi am yi neex na mais war naa gën a neex te Balla sama combat ak moom dafa war a neex mais am na nu ñuy bëree du neex il faut xam nga mu ñëw ak punch mu ñëw ak xam nga te loolu dama koy ñaan. nee na revanche ngay jël si. waaw bu ko neexee am problème waaw bu ko neexee revanche am problème <laughs> bu ko neexee revanche waaw bu ko neexee revanche waaw nañ daal nañ dem ci kanam bu neexee am problème revanche. Hmm. làmb jee waxatuñ ko mais bii lay bii lañ wax man bii moom ma intéressé. cons bi. ah cons non cons non làmb ji j'espère pas ay cons lan. non mais Gris dama gis ne da xaw a jàppee ne Balla maanaam kii bi mu amoon xadar bi mu amoon wala boog euh, doole ji mu amoon amatu ko. moo tax nga ne ko cinq minutes sax bëri na. man de trois minutes laa bëgg ñu sam. non mais cinq minutes. non cinq minutes day man parce que li may liggéey man man adversaire bi lijjantiwuma ko man selon li may liggéey ci li ma nekk di liggéey laa wax. non bu ñu taxawee maak moom. mettil ko non day bàyyi. waaw foo ko teg mm-hmm. non dama dama la c'est li ma bëgg bu taxawee cinq minutes ñu ma mayante ko mu wax mu yokki. mais loolu foo ko teg Gris. ah foo ko teg liggéey bi rek. non sa liggéey mais noo liggéey bi barke xal barke Xalifa Malick maak moom li muy liggéey maak moom képp koo xam ne li ngay daj ci coono yàlla na la ko yàlla fay ci combat bi. li muy liggéey waxuma la loolu man li may daj. Mm. xam nga man fekkee wu ma li muy liggéey man li may liggéey laa xam. Mm. li may liggéey moom concerné wax dëgg yàlla coono yal na yàlla fay coono moom bu nekkee mi ngi daj coono maa ngi daj coono ki ci gën a daj coono yàlla na ko yàlla wan ci bés ba. ci bés ba waaw sànq nga am loo wax si. Mhm. Kati Diop muy Ancelotti. Mhm. moom nee am na fu mu jaar moo xam na Kati Diop bu baax. nee na moom xam na kati quoi parce xam na fu ñu non mënul xam kati parce que kati ba muy kati moom boobu nekk si yeneen affaire mënul xam kati nga ne neex a xam rek fu xam kati lan la xam ci kati ba mais loolu loolu sa taxul mu xam kati loolu dara loolu loolu kati kati mënul xam kati kati dafa bokk ak ñoom ñoom loolu ça n'a rien à voir du loolu loolu ça n'a rien waaw lu tax non loolu bokkul ak dara. mais nga jàpp ni kat yi di ñëwaat benn esprit de revanche ci combat bi. non non man ak moom man ak moom la man ak Balla la. Ah, waaw mais kat dina xanaa loolu tamit. gën la euh, bousee a tàq si. non pas kat yi ñuy liggéey kat yi xanaa xamoo kat yi bàyyil euh, denc ko fële kat yi. <laughs> mais bi comme ni nga ko waxee ah. Euh, ni nga ko waxee noonu la parce que ñu bëri dañu dañu. dañu yàkkamtiwaat combat des gens yoo xam ni dañ koy cons comme combat Gris Bordeaux Eumeu Sène yow ak euh, Balla Gaye bi ngeen bëri bi passé gars yi ah, gis nañ gis nañ lu neex dañ ko yàq mais est-ce tey paroles yi nii nga wax yi nii bés ba incha allah di ngeen ko dëggal parce que lu si bëri nag Gris Bordeaux nag da ngay da ngay corner gauche jàdd droite de non man moom wax dëgg yàlla man sama combat moom man non non non man match nul man sama combat ñaata match nul man la am am aw non non non benn yoon laa ma sama suñu. benn yoon ci ñaata combat man ay match nul man man du ma mbër muy match nul man sama façon bi muy bëree sax man bu ma doon def comme gars yi poids lu gars yi nii am si ñoo xam dañuy ñëw taxaw xam nga di ko lewtoo di ko lewtoo ba bi arbitre yëg di loxo kenn. non man ma noonu nag. ndax Balla naan ko 3 minutes Balla di xeex nga taxaw di ko xool. xeex taxaw di xool. non non non non non non. mais est wax dëgg na si moom naa ko taxaw a. non dama bëgg dama bëgg ñu neexal ko neex bu ko bu ko mënul tamit na def li mu xam rek. mais man li man moom li mu mën def xam la mais loolu ko ñaan ama en tant dama ko ñaan amateur yi rek que amateur dañu war a xam nga Gaston production te ñun ñooy tëj saison bi. loolu dama ko ñaan nii rek ma xam naa bu mënul tamit na def li mu mën rek. mais bu ko mënul yow doo ko non dégg lu ma la man li may ñëw moom maa ngi ko maa ngi ciy liggéey ni may ñëwee mais moom laa wax mu pare parce que bu parewul du baax ci moom. mais bee yaa taxawoon dama ne la man dama ñëw na ko dama ñëw na ko damay cons. mais bii lay mosuloo bëree temps bu gudd dinaa la loo temps bu gudd. Ah. te loolu laa def. bii nag bii li may def bàyyi ma denc ko. <laughs> surprise laa bëgg bu bees tax. mais yaa ngi bëgg surprise. waaw ah. taxaw naa nañu may cinq minutes. waaw loolu laa ko wax. loolu ñaan la rek. loolu ñaan la xam naa ñaan ñaan ko. bu ma ko wax loolu nga fay ñaanee baal. non pour pour ñu bégal amateur yi. xam nga man làmb làmb boo ci dem di nga di nga yóbbu stratégie làmb da ngay préparer selon bu ma demee nii lay bëree adversaire bi bu ñëwee moom it nii lay bëree mais man li may bu war a bëree le 7 août maa ngi ci nekk di liggéey maa ngi ciy liggéey ak ñu ma war a àndal di concentré wu te xam naa ni du ma fa dem sax tetone tétonné tétonnement sax du am waaw ñaan yàlla nag yàlla nañu nañ ko fekkee te tal ko kenn bañ a manqué makan ñu ñaan yàlla fekkee ko te tal ko kenn bañ a manqué dara ma làmb dafa metti ay prolongation ay arrière combat yooyu ñu yàlla nañ ci yàlla musal ay làmb ay làmb yu yàgg ay reporter taw naag wala tawul xiin naag wala xiinul yàlla nañ yàlla nañ yàlla dimbali parce que comme mbakan combat bi dafa yàgg combat bi kooru daawati géej la ca biir corona ba làmb ji léegi mu am ko dese mu am ñaari at bariwul xaw ma bàll xaw ma kan man mii li ma yoroon jeex na tàkk yoratuma dara non moom xam ne sax dara yoratuma ko. mais xaalis bu mu xaalis bi xaalis bi yow tukki woo demoo. non John ci adversaire non non xaalis bi xaalis na. ñoo xaaj ñoo loolu woon rek loolu ay kooru daaw a diggee. waaw. léegi loo bëgg nante la. <laughs> makan moom dégg na man wax ma non lu mu bëgg amul problème makan sama lu mu bëgg ma jox ko waaw en daal di ñaan yàlla di ko li may ñaan sama bopp di ko ñaanal sama adversaire di ko ñaanal le promoteur ak staffam yëpp làmb ji yàlla bu ci lenn sama adversaire yàlla na wér ak jàmm dara bañ ko metti man it même chose di ko ñaanal njabootam di ko ñaanal promoteur bi parce que nag làmb dafa metti boo xoolee tey mbëri combat yi nga xam ne daf fii am rëq-rëq ba ñu reporté ko dama dama yërëm seen i seen i borom dafa metti entraînement dang-dang yi suba ak ngoon guddeeg bëccëg di investir di di def sa xaalis daj ay coono xam nga di investir jekki ay ndok-ndok ñëw dafa metti ñu pusaat la kañ xam nga maanaam tey am na ci ci corona bi am na fi mbëri bu bëri jaaree nañ fa bàyyi bëre ndax toog benn trois ans entraîné woo am na boo yu bëri bàyyi nañ gasax nañu parce que doo amati moral doo amati boo amul ku la poussé wala nga am entourage da ngay da ngay découragé am na boo yu bëri jaaree nañ ci ci pandémie bi bàyyi bëri billaay wallaay amatuñu courage amatuñu dara am ñoo xam dañu jaar dañ dem foofu dañ mujj voyagé kon nag loolu dañ koy ñaanal ñëpp di ko ñaanal tamit di masaw tamit mbër yi nga xam ne comme ku mel ni euh, Ama Baldé Modou Lo combat la boo xam ne tey nii boo xoolee métti na trop et tant kon Papa Sow mais dafa métti te ça arrive mën na arrivé ku ne di ñaan yàlla daal seytaane di ñaan yàlla daal combat bi yàlla ci yàlla def jàmm bala le jour ci mu bëreeg Balla Gaye daan ko jël bu gaaw bu gaaw a gaaw a gaaw góorlu yoon boo xam ne day jékki-jékki rek gis boppam ci suuf. waaw waaw am problème bañ bañ yegg ci yàlla baax na. Mhm. bi mën naa ne combat que du moment retrouvaille ak non mais làmb moom xam nga diggante bi xam nga gëj a bëre gën a bëre ci champion baaxul sax ci écurie xam nga malgré que booy yëngi góorgóorlu def ay xam nga booy yënga fa ñoom Serigne Ndiaye ñoom Gris 2 ñoom Bara Ndiaye ñoom général ak booy yu yu ndaw yi ay kii Papa yi et tant d'autres booy ñu ngi ñu ngi ñu ngi innové ñu ngi ak ak kii nu tudd euh, euh, euh, forsa yëpp ren dañu bëri def ay daan xam nga PAM doy ravagé daan ay trois combats booy yëpp ñu ngi xam nga mais malgré tout ça leader bi combat wu leader équipe bi bokkul waaw tey gëj a bi mooy ni loolu. mais nag Gris Bordeaux moom benn combat la mujjee mooy Balla laa mujjee bëre te combat boobu nag comme combat boo xam ne nag dañ ci dañ ci dañ ci waaye def nañ ci liñ ci war a def te nag honoré nañ suñu ay supporters wone nañu dañuy ñaan yàlla nag saa ñuy dem ci làmp dem fa ak honneur ndam yàllaa koy joxe mais làmb moom ñàkk jom lañ ciy bañ te man làmb ju ma nar a dem di fa wan wane yaa fuus ah, yàlla bu ma fa dem wax dëgg yàlla samay supporter loolu laa leen tàmmal fulla ak fayda jom ak ngor te ci loolu laa ma sa nekk di leen jox rendez-vous le 7 août nante yëpp nañ jóg fukki penc yeeg ñaar ci ndakaaru parce que nag man mbëru penc laa ah cëriñ dëkk lu 19 angle 24 fukki penc yeeg ñaar ci ndakaaru lañ jóg ci ki nañ jóg séeréer si sama mbokku séeréer yi mbokku Kër Moussa Anne campement Ngekox li ko daree taset ba mbuur tund woowu yëpp combat bi damaa lañ ciy woo di woo ci woo tamit njabootu Seydil Hadj nga xam ñooy suma ñooy su ñooy sumay wasila di leen woo ci komba bi sama mbokk nag sama waa kër maam baaba sama waa kër waa ngiraa neen bàyyiwum ci kenn parce que nag yàgg nañ yàgg nañ kaas nag kombaa bi seen combat la waaw képp ku sant ngiraan parce que li nekk ci maam sa da koy jël seen maam Babacar seen maam Baara ngiraan diggante ngóor ngor ak wakaam moo ko ndengeeñ kon bokk ñu leen ciy woo xam nga di ci woo nag suñu ay xarit suñu ay wóolëre xam nga ñoo xam ne tamit xam nga samay nitu bopp lanu ku ci mel ni suma xarit suma frère Euh, suma grand Pape Mayel Diop combat bi da ko jël en mai téye ko ci loxom ndaxaw ma ban waaye bii lépp lu ci war na ci ko def ku mel ni mon frère Kéba Kanté alxamdu Njaay suma grand Modou Ndion DG COSEC di meeru Diass maa ngi koy woo ci combat bi alxamdu Njaay bépp autorité boo xam ne mi ngi Médina commençant par notre maire Bamba Fall ah Seydou Guèye Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Hmm, parce ñi may woo nii samay nit lañu. non ñu may woo parce que parce que la làmb waaw man maanaam tey ñi may woon nii samay nit lañu. Ah. te làmb nag métti na métti goo xam ne benn nit mënu koo gérer. làmb lu mu waa làmb lu mu laaj ci ay dépenses ci ay frais tey benn nit attanu ko. la renaissance de Balla la de. Balla dafa defaraat boppam waaw nekk ci ruq raar léegi yëfi mbër lay def. bàyyi na moto yi <laughs> bàyyi na grand place yi. lëllu na. bàyyi na carte bàyyi na nelaw guddi. waaw doon def yooyu. waaw Balla doon yor booy booy la woon Balla moo la gën a nekk bànn yow. ah bon non man yooyu la pour man man. dawal moto. loolu moto. dem xam nga. a xam quoi. ah bon. waaye nag yooyu de dafay lëlu affaire mbër lay def. non non yooyu man. mbër bee dikkaat mbir mbër bee dikk le lion de man man loolu laa bëgg. le lion ah allah yàlla na yàlla def jàmm. li la xamal ni ñetti minutes allah waaw mais li la xamal ni. làmb dafa metti combat dafa metti tey boo jugee dëkk jug boo nekkee ci pénc bëgg ñëpp jóg kon. làmb ni benn nit attanu ko ñi ngay ñi may woon ni ay ñii ay autorité lañu nekk Medina ñii samay wëlal la ñii sumay xarit lañu ñii nag ñoo xam ne bëgguñu sax may toog sax di leen tudd mhm. te su ma jógee ñu jóg dañ may taxaw damay jàppale ci lu biir ku mel ni le président Abbas yi wax dëgg yàlla l'infi fatigable président xam ne tamit ay mbiram booloo ci ak wax maa ngi koy jaar di ko bigab di nuyu dirigeant équipe Fass yëpp di nuyu suma entraîneur euh, Amadou Kati Diop ak euh, staff bi yëpp xam nga di wax ni daal combat bi maa ngi ciy woo ñooñu ci woo waa Ciki xam nga sama dëkk ba waaw maa ngi leen di ziar di bi waa Kër Moussa Anne waa Tentu Baab sama mbokk yooyu yaa ngi tax sax ba may yaa ngi may jaxase sax ba may ba may xam nga waaw waaw waroon waroon ma jaxase. waaw waaw waaw waaw man moom. pare naa quoi gis nga Balla keroog indi nan nga gisee forme Balla. ba ko gisee yow automatiquement sa xel. waaw waaw Balla mi ngi liggéey mais na gën a liggéey waaw na gën a liggéey. dafa des na a liggéey waaw. gën a bëgg liggéey ko. xaw ma a liggéey rek liggéey du doy. yaa ngi ni yaa ngi liggéey chaque jour yaa ngi liggéey. mais lan a la war a gën a liggéey. mais na gën a liggéey rek ah affaire moom doo toog ni yam fi nga war a yem da gën a liggéey pour gën a dem ci kanam. mu na gën a liggéey mu ngi na gën a liggéey. na doyul waaw na gën a liggéey. xeeb nga ko daal liggéey na gën a liggéey waaw. endurance cinq na gën a liggéey. léegi li ñuy ah, loolu question question d'actualité la. hors lamb la ñu ngi jëm ci élection locale dégg nga réew mi kàddu politiciens yi ñu ngi koy jokkoo na ñu am nañu tiitaange ci élection yi ñu jëm. yan kàddu ngay wax sa sa. na rafet na rafet na rafet na rafet quoi na rafet. na na rafet parce que Sénégal tamit ñun ñun ñun ñun ñun ñun tal nañu golo golo tal na lu leneen lu dul tëbiteen waaw ñun ñun tal nañ leen ñun jàmm rek moo ñu jig waaw opposition bi lañu dal xam nga ñu nekk ci ñu nekk ci nguur gi nañuy nañuy nañuy teg affaire ci yoon. parce que ñun tamit ay superviseur lañ ah dañuy xool lu jaadu ak lu jaadul malgré que ñuy toog suñu ruq bu ñu amee occasion bu ñu waxee dañuy wax parce que tamit fii tamit xale yu ndaw yi sax xam nañu ni affaire yi di fonctionner xam nga nguur du jaay doole nguur buy jaay doole moom dëkk ba du stable parce que yonent bi moo ko wax nee na sin faane min ummati isa salaxu salaxan naasa wa isa fasadu fasadan naasa al umara wal fuqaha yonent bi nee na dëkk ñaar yi moo tax mu stable al umaraa wal fuqahaa yonent bi nee na sinfaan yi ñaari xeet min ummati ci sama xeet isaa salaxu bu ñu jubalee salaxan naas ñëpp jubal wa isaa bu ñu jàddee yoon fasada naas ñëpp jàddu yoon ñu ne ko yaa rasulallah ñaari xeet yooyu daal mu ne al umaraa mooy njiit yi wal fuqahaa ak gouvernement bi nee boroom xam-xam yi ak gouvernement bi bu ñu tegee affaire ci yoon dëkk ba ñëpp tegu ci yoon bu ñu dëngalee dëkk ba dëng ñun suñu ay boroom xam mooy diine ji mooy Touba ak Tiwaawan ak Yoof ak ñooñu mooy suñu ay borom xam-xam ak gouvernement bi ñoo ñu tey bu ñu tegee affaire ci yoon dëkk bi day stable bu ñu tegulee ci yoon bi dëkk bi day dëkk bu stable rek lool la kon bokk nañu gën a defaraat seen toogaay xam ni wax dëgg yàlla élection bu ne jaar na fi xam nga élection bu am amul élection bu fi jaarul mais à chaque fois da ngay gis élection bu amee gars yi commencé laal constitution bi xam nga kenn comprendre lu mu demee. kii da war naa bokk kii warul bokk ak kii xam nga yooyu day indi ay problème xam nga affaire daal mooy lan man bu ma jëmee ak yow ci combat damay fexe ñaana la jàmm nga ñëw ñu bëri ma daal la te élection yi ay combat la donc élection yi ngay gis ni combat la nañ ñëpp bokk que le waaye di xool kii boo war a bokk ak kii di def ay façon yooyu baaxul xam nga en tout cas Sénégal ñu jàmm ñu jig et puis la temps yi maa ngi gis benn benn phénomène bu garaaw ci dëkk bi cherté de la vie bi les grands commercant yi xaw ma ay commerçant xaw ma di ci profité ku ci nekk da nga xool da nga xool ni da nga xool ni da nga layoo sa ak sa ak sa ak sa ndeyjooru de biir bàmmeel de ku ci nekk boo demee ca xar ya barki Seydina Muhammad boo demee ca ginaar ya ñu mel ni kuy njëkkante mel ni du ñu ay jullit ku ci nekk na nga xam ni sa bàmmeel yow rek yaa fay tëdd di yokk affaire yi comme c'est pas possible bu ñu waxee ñaan naan ak Poutine ak Russie boo demee ci boo demee ci aliment yi aliment euh, kii nu mu tudd xontu beeg yooyu añ lekk daara alimentaire ñuy njëkkante di yokk affaire ni ñu koy yokk façon yokk boo xam ne mare de tàlli boo waxee ñu ne guerre Ukraine nañu xam ni ay jullit lañu nañu xam ni nit lépp loo xam ne yaa ngi koy jël di ko def sa biir bii te nekkul lu lew defal ni sa bopp mi tooke ngay def sa biir bi ak déegu gaaw gii nañuy seet yàlla ci li ñuy def nañu seet yàlla ci bu mbir amee amul contrôle ñuy profito di yokk mbir affaire yi di ko yokk yoo xam ne yokk bu yokk yoo xam ne c'est pas possible nañu xool lu baax li ñuy def xam ne bu ñu nee ay julli lañ ay julli lañ te occasion bu amee ñuy ñuy ñuy mel ni ñuy njëkkante di profité. baaxul loolu mooy waral tey nga nga jàkk nga profité ci affaire yi. di jaay lu nekk di def lu nekk ëllëg nga dëgg ne sa boutique tàkk na. yàllaay defee noonu de boo gisee nii di yàq yenn yàqule yi rek mooy lekk riba lekk lu jaay loo warta jaay wala ngay nit ñi lu alal yooyu ngay jël di ko récupérer ci nit ñi mooy waral nga jékki-jékki ay court-circuit am ak ñu ne yàqule na lakkala na lu bari yàqule na lu bari yàlla nañ ci yàlla musal am na ñoo xam ne nag am na ci ñoo xam ne ñu gëm yàlla la ñu les commerçants am na ñoo xam ne ñu xalaatuñu ci àddina lekk lu lew mais nag li may wax nii sa concerne ñi nga xam ne ku ne boo wéetee xam nga sa bopp am na ñoo xam ne ñu ngi profité ci guerre Ukraine bi di def na naka sudul noonu di yokk yokk yu yokk yu doy waar loolu na ku ko ci def di nga ko gis waaw. di jaar ñëpp waaw di am contentement wax dëgg yàlla di jox rendez-vous samay supporters wax dëgg yàlla le 7 août. Euh, euh, arène wax dëgg yàlla. musuma faa bëre gan laa fa. mais nag xam nga nante laa moom xam nga yaa ma gën a xam. yaa ngi fay dugg temps yi. waaw xam nga may xool am affaire yi nii des fois xam nga lu waaw ah, xam nga. nuyu rek ay na Baara Baara moo nami Baara euh, canaar sama gars yëpp maa di woo xam nga di woo waa Fass Gueule Tapée Colobane ñaari tali xam nga zone A zone B Grand Yoff HLM xam nga 1 xam nga. bàyyiwuma ñaari tali ma zone A Sacré Cœur xam nga boo nee Fass rek da nga naan Dakar Centenaire Gibraltar xam nga. boy town yi nañ jóg waaw làmb ji daal moom làmb ji moom dama bëgg moom gars yi def ci paccal ci li ngoom làmb ji moom dama bëgg ñu teel a pare xam nga teel a pare parce que wax dëgg yàlla nag doom day dama xaftaan bi dafa doon dafa doon laaj dafa dafa war a tooy no ki bàyyi ma denc ko di jaar ñëpp di nuyu di nuyu ñëpp di sama sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla na ko yàlla yàlla yàlla dëgër yàlla na yàlla na ko yàlla dëgëral di nuyu suñu sëriñ suñu xarit euh, sëñ Muntaxa yàlla na ko yàlla yàlla na fi yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg jiital mu yàgg tete tette njabootu mam mam borom Touba di nuyu xalif généraux yi fi nekk yëpp di ñaanal jàmm di suma yaay ak toute ma famille jàmm di ko sàkku ci ñoom di nuyu moo frère ma sœur euh, awa Bordeaux di ko ziar di ko big up awa sama sœur aw Bordeaux na fi Bordeaux <laughs> xam nga Belen Bordeaux yooyu ñëpp xam nga. tout Bordeaux ñëpp Bordeaux ñëpp waaye xam nga. di ziar waa Mbaaw nag di nuyu ne mais mais mais xam nga euh, Makka ak Medine. xam nga mu ñàkk ah mon mon frère ah, sama sama sama seex la xam nga maa ngi koy ñaanal di ko ñaanal jàmm moom di ko big up di nuyu waa Mbaaw yëpp ah waaw ñoom it ñu ngi waaj combat bi comme c'est pas possible mm. di nuyu numéro numéro deux yéen ñaanal jàmm xam nga waaw Makka ak Medine yéen ñaanal jàmm yàlla na yàlla na yàlla defal jàmm xam nga ah, jaajëf di gërëm yaa ngi doon seetaan yëpp di gërëm aussi sama waa dëkk di nuyu waa salle bi tamit waaw nuyu waa salle bi ah wax dëgg yàlla salle bi moom waaw nuyu waa salle bi ah leen bigëm ñoom ñëpp parce que da wax dëgg yàlla ma mhm. jox ma tous les moyens qu'il faut xam nga wax dëgg yàlla ah. xam nga ama jàkk boo xam euh, salle bu am jàkk mhm. xam ne boo entraîné ba sonn laal ndox xam nga jàpp ba sell wax ak sa borom xam nga loolu dafa raar mhm. waaw te góor gi nag wax dëgg yàlla ilaa boo ko investi di ko ñaanal jàmm dëgg yàlla xam nga yàlla ci yàlla def jàmm. merci beaucoup mbokk yi jaa ngeen jëf Sénégal woon ànd ak euh, Gaston Production di remercier au passage euh, si disponibilité bi ak yombal ñu liggéey bi muy euh, makan bu Gaston Production et à toute l' équipe de Gaston Production merci beaucoup on se rendez-vous le 7 août incha allah rabbi Gris Bordeaux nante bi Balla Gaye doomu Géejawaay le Lion war a dellu si waat incha allah rabbi combat de la clarification jaajëf góor gi jaa ngeen jëf mbokk yi ba prochainement incha allah.